Cheikh Tidiane Cissé ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. maa ngi lay nuyu di la fay may fàttali suñu auditeurs yi ne moom mooy secrétaire général bu fédération euh, baykatu bassin arachidier euh, njiitu réew mi jeexal bu yàggul euh, tournée économique tey nan ngeen jàngatee yéen ñi nekk foofu ci bassan arachidier lii di doxantu nemmeeku ci wàllum koom-koom bu njiitu réew mi. danaa waaru rek waaru parce que ñun dañ yaakaaroon ne tournée économique comme ni ko tur bi uyoo te ñu yaakaaroon ne vraiment bu ñëwee nga xam ne fii mooy Saloum nga xam ne vraiment dafa nekk réew mu nga xam ne bay gerte moo fi li nga maam li fi am doole te moom mu compté da nga maam ci économie yaakaaroon nañ ne bu ñëwee danañu boole ci situation da xam ne bu boobaa danañ mën a wax dégg maam problème yi nga xam ne moom lañ jànkuwante surtout que ne fi nekk nii ñu ngi dem ci problème mu nawet te nawet ku ko wax dégg nga maam wax ne mooy préparation campagne bi nga xam ne mooy di gën a important parce que moom mooy tax dégg nga maam nga am production bu baax donc suñu demee ba niveau boobu dégg nga te euh, ñëw na fii ba dem dégg nga maam jàkkaarloo ak acteurs yi parce que laajoon na mu jàkkaarloo ak acteurs yi kon convoqué leen mu nekk genre forum bu nga xam ne dafay jàkkaarloog ñoom nit ñi wax lan mooy seen gis-gis ci problème bi bu boobaa ñu seet naka lañ koy résoudre. problème yooyu ngeen bëggoon a waxtaanee tey jii bu ngeen jàkkaarloo woon ak njiitu réew mi moom ngeen koy baaxee. naa ak euh, euh, Togo. Mm-hmm. dafa nekk lu nga xam ne yaakaar nañ ne problème la bu jafe-jafe-jafe parce que loolu lu ko waral mooy. dañ gën ne ñun li ñu waxoon dégg nga maam ci production agricole loolu amul. Mhm. donc su loolu amoon wax dëgg yàlla mënoon nañu seppi ci loolu lu nga xam ne dina mën nekk semence donc bu demee bàyyi yaakaar ne opérateur yi dinañ génnee semence Togo wala di ko indi te loolu suuf yooyu bokkuñ dégg nga maam dafay nekk benn jafe mhm. donc loolu suñ problème la mais deuxième circulaire bi mooy dafa am ñu nga xam ne ñoo yore certification gerte gi ñoom mu sur génne circulaire ne ñooñu nanguñuy seet génne certification. te loolu ñoom nekk nañ seen droit parce que gerte dafa déréglementé fii ci Sénégal parce que multiplication de semence amatul te multiplication bu semence amatul dootoo am semence bu baax semence da nga koy jënd ci pré base di ko multiplier di ko multiplier ba mu dem écrémé loolu yëpp amatul donc mu nekk suñ problème yoo xam ne da nga maam dafay nekk problème donc ñoom nekk nañ seen droit bu ñu gisee ne semence bi mënatuñ koy certifier dañuy bañ ne duñ ko certifier loolu nag ñaari problème yi boo leen réunir dafay mel campagne hivernale bi ñuy jëm te maanaam dafay nekk torof torof bu mag. tey wax nga kon nawet bi euh, ñoo nga ca sax ndax am na fi nga xam ne commencé na tey jii euh, yéen a ngi waajal seen bopp nan ngeen koy waajalee. waajal bu jafe parce que ñun dañuy waxoon ne euh, ñii maanaam bu ñu xaajalee mois de mai. alors mise en place yi dinañ commencé ba nga xam ne début de juin dinañ joxe gerte gi pour nit ñi mën ciy jot mën ciy def li war parce que gerte xott la ñuy jox ñu mën koy xool yi taat na ko defar ko ba mu baax ba nga xam ne premier taw yi dinañ mën a ji mais finalement ba léegi ñuy wax yow yow gisaguñ dara déggaguñ dara loolu nag mu nekk problème bu nga xam ne dafay nekk jafe-jafe donc je pense que euh, euh, ñun en tant que producteur vraiment euh, situation bi nekk na situation bu nga xam ne buñ moytuwul dana indi problème lan moo waral euh, li nga xam ne moom mooy semence yi euh, euh, distribué guñ ko ci sa xalaat bu gàtt. semence bi lu tax distribué wuñ ko parce que peut-être yooyu problème yooyu ngi yi nga xam ne da nga maam amoon na lu ñu leen waroon a certifié gars yi bañ na duñ leen ko certifié yooyu nag mooy indi à ce que da nga maam am retard donc semence amul ci réew mi parce que tonnage bi ñu joxoon ne un million huit cent mille tonnes am na fi un million huit cent fi loolu nag nañ bàyyi nag di da nga maam pour gonfler ëllëg si bi dégg nga maam ñu dem ba ci réalité bi duñ mën a gis réalité bi nga xam ne moo waral dégg nga maam ñu doxal affaire donc je pense que ne euh, au niveau dégg nga maam tutelle il faut ñu gën a plus sérieux jël à bras le corps problème yi nga xam ne dégg nga maam mooy problème mu euh, agriculture politique agricole bi ñu dafa ko ba nga xam ne ëllëg si biir dinañ ko teg sur des bons rails dégg ñu mën a jaar jaar ci yoon bu nga xam ne dana mën a nekk njëriñ sur baykat yi. kon bu ma la déggee ngay wax chiffres yi nga xam ne jotoon nañ ko jox dañ ko maquillé woon. à coup sûr parce que ñoom xam nga problème bi mooy fi nekk nii opérateurs yi nga xam ne ñoom la ñuy jox gerte gi li ko gën a waral mooy ñoom dañuy euh, indi xaalis di ko jox baykat yi dégg nga maam duñ leen jox gerte loolu yoonal ne comme ni ñuy wax opérateurs yi seen bopp rek lañ fi nekkal bu ñëwee nag yooyu nag ñoom ci li euh, estimation yooyu ñuy joxe en semence moom la ñuy estimer pour dégg nga maam jënde ko ci dégg nga maam ci production fekk te yow li nga joxe ci gerte ak gut genn wàllu dégg nga maam li ni paysans yi jot loolu nag mooy indi à ce boo estimer dégg nga ñi nga xam ne ñu ngi ci tee xam production la toll des fois dañuy contester ne loolu amul donc je pense que ne war nañu man a gën a xoolaat situation yi nga xam ne dégg nga maam moom la opérateur yi di te yaakaar naa ne loolu war nañ ci mën a génn saw yoo xam ne ëllëg ci biir opérateur yi jéem a seet ñoom ni ñuy féetoo boor dañoo am ñu rek problème bi. tey jii lan ngeen namm ngir ñu seetal lii di secteur agricole bi ngir lii yëpp di jafe-jafe cee amat. gis nga problème bi dafa yomb problème bi mooy yi nañ leen foog seet fële ci semence saat ñoom ñu mbay parce que ñoom bay lañ lañ dool doole lañ bëgg pour agriculture bi dem am nañ doole pour mën a liggéey nañ dem liggéey terre bi. dégg nga maam ñi nga xam ne dégg nga maam ñooy industrie yore semence parce que ñoom semence mooy seen matière première ñu mën koy gàddu gàddu bu rafet di ko jox baykat yi jaral na leen ñoom ñu jënd ji pré base di ko jox baykat yi ñu koy multiplier bu boobaa ñoom danañ yokk sax emploi parce que danañ am ay structure d' encadrement muy ñi nga xam ne dégg nga maam dañuy dox diggante Sonac diggante usines yi ak dégg nga maam euh, baykat yi encadreur yooyu ñooy ñëw xool dégg nga maam mbay mi ñu muy ñu muy ndax gerte gi mu ngi sax ndax gerte gi sax bi ndax rafet na ndax gerte gi dégg nga maam ñor na dégg maam ak nu mu ñoree bu boobaa bu mu ni indi contractualisation bu boobaa baykat yi danañ mën a fay seeni bor ñu xam ñi mën a fay ak ñu mën mënta fay assurance nekk fa ñu mënta fay dégg nga maam ñu xam ne mënuñu fay assurance fay ko ñi mën a fay fay jàmm ne ñooy réew mi ci mais opérateurs yi seen bopp lañ fi nekka liggéeyal seen bopp pour am xaalis ñoom c'est tous des milliardaires léegi nag problème bi nañ leen bàyyi ñoo ñu dem bàyyi ji bàyyi dégg nga maam bi kii loolu sax dana doppee dégg nga maam les industries bi biñ fi nekk di wax ay kii ak problème danañ am premier atout pour joxe intrant dégg nga ak premier atout pour joxe semence loolu dafay nekk plus-value bu nga xam ne dañ koy gagné tandis que li opérateur yi nekkee milliardaire mu dugg ci industrie bi ñoo am ay emploi loolu dafay nekk lu am solo. bu weesoo semence yi daal nañ leen gën a dégg tamit ci lii di wàllum intrant euh, tey jii ndax dañoo euh, saafaraal mbir mi wala ba tey jafe-jafe waaw jaajëf intrant moom ba léegi gisaguñ dara engrais moom guñ ci dara problème bi nag man man dama mënul comprendre naka lañ mën a amee industrie bu toll ni ICS am phosphate bu jëm dans le monde nga xam ne moom mooy génne acide phosphorique ak acide sulfurique dégg nga maam muy base élément yu nga xam ne moom la ñuy defee engrais bu dul ay ay ay addition yu nga xam ne moom la ñuy yokkaat dégg nga ñuy for wax problème d'engrais engrais waroon nañ koy am à tout longueur d'année léegi man dama pays limitrophes yëpp moo leen di jox ba Mali gi nga xam ne tey seen agriculture ni nga ko dopee da maam ñoom da nga maam ci ICS lañ ci am na benn at moo xam ne dama dama sama xol dafa naqari parce que benn industrie bu nekk bu mag bu nga xam ne moo nekk Mali mooy jaay engrais Sénégal mais loolu dafa jaaduwul léegi nag ñu ngi wax ne ñu engrais dafa cher kii loolu tax engrais amagul mais ñun loolu mënuñ ko dégg parce que engrais bu seeree à l'extérieur te ñu am engrais bu nga xam ne ñun ñoo moom suñu phosphate suuf ko moom ñoo ko mën a defar ñun on s'en fiche de l'engrais bu seer Sénégal bu seer euh, bitim réew donc ñun nañ defar suñu engrais mu nekk engrais de qualité ñu am production de qualité parce que suuf si dafa pauvre te suñu amul engrais du dem. ñuy wax ne ñii di politique yi wax ne euh, lii di mbay mi priorité la euh, ci mim réew ndax lépp li fi wax lim ko muy jafe-jafe ak it tournée économique yi ñuy wax te duñ leen ci jox gëdd euh, jàpp nga ne wuyoo na liñ koy woowee. non wuyoo ko wuyoo ko parce que loolu tax fi nekk ni problème agriculture bon gerte moom dama ragal ne buñ daf dof loolu baykat yi léegi tayal nañ ci gerte ba nga xam ne pour ñu bay gerte sax problème la bu dul seen jur gi ni ko noonu bàyyi gerte parce que politique agricole bi nekk fii moo tax de nga maam ñu bañ dégg nga am bay gerte parce que boo bayee doo am semence bu baax doo am intrant yu doy ñu lay koy peese par ñaari kilo ñetti kilo di ko joxe par bopp bu boobaa doo am ñaari ñaari saa koy gerte mais ça va poser des problèmes. dafay mhm. nekk problème. Ah, ban yaakaar ngeen am ci nawet bi ndax am ngeen yaakaar nawet euh, gu naat. ah dañuy wax ne cinde bu naree neex bu baxee xeeñ man de li ma gisagum nii wax dëgg yàlla gisaguma ci lu aw yoon parce que euh, euh, comme que ñun gisaguñ gerte gu nga xam ne semence bu certifier la ba pare gerte gi dégg aussi di ñu ngi wax ne mën naa jëw koo Burkina bala mën na jëw koo Togo mais wax dëgg yàlla bu boobaa ñun ñu jaaxal ñu am lu nga xam hivernage bu baax parce que hivernage moom. vraiment dafay fekk dégg nga jot gerte gi à temps mu nekk gerte gu baax nga am intrant bu nga xam ne bu doy la bu boobaa boo boo boo boo kilee mën ngaa yaakaar ne. kon lii mais bu yooyu yëpp amul. Uh-huh. dafay nekk jafe-jafe. kon retardu distribution semence yi dina am jeexital ci lii nga xam ne mooy production bi. à coup sûr parce que retard bi fi nekk nii nee naa la ne euh, baykat yi léegi ak seen expérience bi ñu am xam nañ ne bu yàlla ji ne bépp taw rek dégg nga maam dañ war a ji parce que loolu moo lay may nawet. fi nekk nii bu njëkk da nga daan gis ko nga xam ne danaan ji dugub ba pare soo bi ji gerte mais léegi da ngay gis ko nga xam ne day jiital sax gerte pour ji dugub mais loolu moo waral à ce que nekk nii gars xam nañ ne avec des réglementations climatique bi wax dëgg yàlla il faut nga profiter pour teel ji pour am nawet bu baax parce ndox day manqué te bu ndox manqué te boo teel a teel teel teel teel ji dafay nekk beneen problème loolu tax ñu xam ne affaire bi mun na indi ay problème mu am tamit yeneen jafe-jafe yi nga xam ne ay techniciens ak liggéeykat yi nekk ci secteur agricole bi am ay fan a ngi nii ñu nekk ci doxu ñaxtu tey ndax seen i euh, grève yooyu le am na njeexital tamit ci euh, seen secteur. waaw am na njeexital parce que moom ma lay wax nii parce que ñoom moom yaakaar naa ne ñoom ñoo bañ pour certification yi te nekk nañ seen droit. parce que nekk nañ seen droit parce que ñoom ñu ngi revendiquer mais aussi boo leen bëgg a forcer xam ne wóor na leen ne lii baaxul aussi dañaan gën a nekkaat seen i donc loolu nag moo tax vraiment ma gëm ne ñoom fi nekk ni dañuy xeex te bu ñuy xeex nag dañuy dañ booy ba am double légitimité dama ko yaakaar ne danañ danañ danañ exercer légitimité légitimité pour dégg nga maam dugg seen i droit pour ñu régler leen ko. Hmm. donc problème bi daal moom yaakaar naa ne loolu mooy situation bi nga xam ne moom il faut que ñoom itam ñu jëm leen di xool seen problème. monsieur Cissé dama bëggoon a xam ban poids la sec le bassin arachidier bi am ci économie euh, Sénégal. waaw parce que euh, bassin bi moom boo ko xoolee. Euh, gerte mooy mooy mooy fi base bi nga xam ne mooy base économique bi. Mm-hmm. bu gerte amul parce que dafay nekk problème parce que ñun mooy suñ culture la daal ci la monde rural bi di dund ci la ñuy régler seen i problème donc su bassin bi demee ba nga xam ne da nga maam euh, fayda luñ fayda luñ euh, mayam gerte bi mais dafay nekk beneen problème boo xam ne foog naa ne dana dana dana wàllu dégg nga maam dana wàllu wa wàllu ci suñu suñu suñu koom-koom ak suñu am-am. Mm-hmm. parce que fi nekk nii gerte ba am na baax bu nga xam ne prix bi baax na baax boo nga xam ne léegi boo ko jëndee trois cent ba trois cent cinquante ba quatre cent franc. Mm-hmm. dañuy boo ci amee tonne mu ñëwal la quatre cent mille nga man ci am cinq tonnes ciment wala six tonnes ciment. vraiment da nga bay lakk-lakk yi ñu daan dégg cas yi nga daan dégg ñuy lakk presque léegi dafay wàññeeku na loolu dafay nekk impact bu rëy rëy rëy dans le monde rural mais aussi dans l' économie sénégalaise parce que bu euh, euh, umpale ne président Macky Sall. demoon na ba bi Covid bi amee mu ne moom fi nekk nii dafa bëgg a basé wu ci agriculture bi pour ñu pour pour buñ dem récession loolu moo waraloon da nga maam mu yokkoon soixante milliards pour da nga maam euh, vingt milliards parce que quarante milliards loolu mu yokk fa vingt milliards pour da nga maam ñu defaraat intrant yeeg yooyu loolu moo waraloon daaw da nga maam mu kii mais malheureusement dafa échec parce que ministre bi loolu taxoon muy muy gonfler chiffre mi pour justifier les vingt milliards mais finalement on a su que la montagne a accouché d'un sourire. Cheikh Tidiane Cissé ñu lay jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup Elisabeth. may fàttali suñu auditeurs yi ne mooy secrétaire général fédération des agriculteurs du bassin arachidier.